bienvenue sur tas info dal leen ak jàmm ci seen ànd ak seen chaîne youtube tas info bu dee gan le problème entre Sadio Mané et le roi Sané n'est pas encore terminé face à une presse à la place Habib Beye revient sur ce problème disant que les dirigeants de Bayern Munich ne doivent pas agir comme ça c'est-à-dire de isoler le roi Sané et de sanctionner Sadio Mané ñi nga xam ne ñoo di dirigeant yi ñi nga xam ne ñoo di waa Bayern Munich ki nga xam ne moo di Habib Beye eh, nee na du la nga xam ne moo war ci li nga xam ne moom la def mu di lii ñu def làq doom dóor doom maanaam daal sanctionné Sadio maane ba pare làq ki nga xam ne moo di kii di Leroy Sané moonte Leroy Sané lim def lu garaaw la loo xam te ni ñëpp maanaam presse bu àdduna bi yëpp wala sportif yi bi yëpp war nañ cee wax ci xam le ni li moo di xeexu racisme day loo xam te ni das koo tere te it bu yàgguloo gis nañ fi ñu ko fi dafa ba mujjee di leen apporter ab soutien aussi di dal ci ñi nga xam te ni ñi nga xam te def loolu mu di supporter yi doon def loolu bu demee ba ay coéquipier ñooy def loolu te ñi nga xam te ni ñoo di ay dirigeant di leen làq maanaam làq doom dóor doom kon bu boobaa indi na beneen problème ci li nga xam te moo di milieu milieu bi nga xam ne moo di milieu sportif bi nga xam te ni la ca war na am moo di lan ñëpp ñoo war na tolloo waaye warta àgg ci li nga xam te ne moo di ay yëkkante ay kàddu ci naan kat kii ab noir la kii ab nit ku xonk la wala kii ab tubaab la ak kii ab la ak ya caajo ni di loo xam te ne loolu doy doy waar la ñi nga xam te ñoo di way dirigeant yi ñi xam te ne ñoo di wàllum fee di Bayern Munich ci li nga xam te ne agir nañ ci ndax kat monsieur su la gisee ci histoire football ñaar ñu xeex ñu dem jël kenn ki di ko sanctionné keneen ki ñu bàyyi ko muy lambar lambaree ak tambaambalu kon li nga xam te moom la def ci ki nga xam te moo di Leroy Sané mu di bàyyi ko muy tambaambalu moom ki nga xam te ne moo ñu jël ko di euh, ko de l'écart maanaam euh, isolé ko ni dañ koy suspendre jusqu'à nouvel ordre moonte terewul moom mi ngi compté entraînement ci fi xam ne moo di ci Bayern waaye loolee moom lañ ci tekk te te boole ko amende boo xam bu rëy la boo xam ne nañ ko moo ne ki nga xam mooy ndali mbili mbir yooyu te waral lan mbiri moom ma ci biir Bayern ne di tambaambalu